Thank you. daleen ak jàmm seen euh, revue de presse bu limametti point com semaine bi nag ay xibaar yu doy waar ñoo jàll si limametti ñu tàmbale ak Assane Lopi bi nga xamante ni moo nekkoon fii ku ñuy woowee le jeune milliardaire moom nag dañ ko boo xam ne nag dund bu jéggi dayoo la ndaxte dafa na ba ñu topp ko ba ko police waaye léegi nag atim di passé xam ni mooy Assane Lopi nekk benn ndaw boo xam ne dafa bëgg a tourner la page maanaam euh, toppatoo li nga xam moom mooy euh, avenir am nekk beneen nit léegi nag dafa gën dafa nekk mag waaye gën a ñor si wàllum liggéey bi nga xam ne mu ngi ko doon def moo taxit léegi nag mu euh, euh, destin bi a euh, moom ni moom mooy dund bu mu def temps yi muy nekk ndaw li nga xam ni moo lëmbe réew mi mooy mortgage bi nga xam ni moom lay def buzz si réseaux sociaux yi milliardaire boobu nekk Las Vegas États-Unis temps yi daal moom moo lëmbe mi ne lu ñu mën a mooy kenn xam am leg lu bëgg def parce que foko fekk mu ngi def ay statut mu ngi publier ci réseaux sociaux yi waye ak milliard mu yor donte mu ngi dimbali nit waye ba legi xamuñu réellement lan la mo geet bëgg ci aduna ndax am na xamni bëgn ñu xaaliss ngi ngi ni mom waye loolu ma sa dégg ñi def yeen activité nga xam mo geet mu ngi koy def ñi laaj lan ma ko téré eh, jël réew mi manam eh, nek politicien wala def lo xamni nit yi nañ ko mëna gëna bëgg ci liggéey bu muy def benn xibaar bi nga xam ni moom la ñu amaat mooy Diary bi nga xam ni feeñ na sax moom bëggul wax waaye dafa am xaritam boo xam ni moo wax ni que Diary Sow euh, feeñ na Diary nag bu ñu seetee si source si nga xam ne am nañ ko ñu ngi laam-laamee ni que moom dafa euh, dem daana dafa daw ndax pression bu mu am waaye papa bi nga xam ne dafa gaañu am na loo xam ne am na lu mu joué si boppam bi loolu yëpp nag ay jafe-jafe yoo xam ni moo tax ki nga xam ne mooy Diary Sow daal di daw daal kenn jàpp ko dafa daw maanaam dafa laqatu nekk si xaritam fële ci par 13e donc loolu mooy information bi nga xam ni euh, moom moo euh, moom la leen indiloon tey ñu leen di jaajëfal euh, si déglu bi ngeen di déglu mu nekkoon info du jour si limametti point com ñu jox leen di jox rendez-vous beneen yoon si yeneen xibaar yu gën a tàng jaa ngeen